tedd ba gën a sell jëmee ko ci a Cheikh Mouhamadunil Muntaqa di ñaan sunu borom bàyyil na ko fi te may ko wér lool ba lépp lu mu yéene liggéeyal sëriñ bi ci toolub lislaam mu mën koo def ni mu ko bëggee te nu ànd ko ak moom di am mbégte mu rëy di sant sunu boroom cant ga mu yàlloo ci anam yu bare bare bari di ko sant ci weeru tedd wii muy weeru safar nga xam ne ci la Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu génnoon liggéey liggéeyam bu sell bu tedd bu màgg boobee nga xam ne ci la ñuy jariñu ba tey te du fi jóg booba àddinay tukki te at mu jot wala bis bu set muy gën a yokku di gën a àgg dayo boo xam ne ku nekk da nga naan lii dey moom sëriñ bi rek moo mel nii ñu di ko sant itam ci barab bii nu toog muy Touba Touba doon dëkk boo xam ne dëkkub daara la dëkkub jàngukaay la dëkkub sant la dëkkub ngërëm la di ko sant itam ci pàkk bii nu toog nga xam ne mooy jàngukaayu Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu bi nga xam ne moom la wax ne sunu borom defal na ko ko sunu boroom defal na ko ko ba noppi kon fu jamono toll rek jàngukaay bi day toll foofa waaye bil Mustafa lii banaa bana al quddus madrasatan biha yazulu al ada wal jahlu wal kabadu sunu borom tabaxal na ma wala taxawalal na ma wala defal na ma ba noppi ab jàngukaay jàngukaay daaray cheikhul xadim radiallahu anhu yoo xam ne mooy daare ji fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi woon nga xam ne mooy daare joo xam ne dafay defar nit ki defar àddunaam defar alaxiraam loole nag moo agsi ba ci cheikhuna alxadim radiallahu anhu jaar ci sahabatul kiram ak taabiin yi mu jël ko ne cas liggéey boobee jege ñal ko nag dëppale kook nun dëppale koog naka xam ne rek na ko sallallahu alayhi wa sallam indee woon la dara raxu ca dara kooju ko dara xajamalu ko loole rek la sëriñ bi indiwaat yar ci mbooloo defar ci ay bokkam defar ci magi bi yi gàddaayoon fekk si ko defar ci njabootam gannaawam it ñu tasaaroo ci réew mi ak ci àdduna bi fenn fu nekk ñu taxawal fa liggéey boob yi nga xam ne moo tax buñ koy buñ koy wax dañ naan daaray Cheikhuna al Khadim wala système wala modèle éducatif bu Cheikhuna al Khadim radiyallahu anhu te bu mooy bi nga xam ne mooy bu yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo ñooñee mu defaroon ku ne fa nga nekk nga di ko fa yaatal ñi nga xam ne ñoo ko fi wutu itam kenn ku nekk boo ñëwee fa jamono toll nga tollale fa liggéey boobee tàmbale ci Cheikh Moustapha al Karim nga xam ne moom moo fi indi woon sëñ laa ni ñu ko daan waxee waxtu ne fii ci Touba mu yoroon fi daara booba foofu la dëkk bi toll doon jàngale xam-xam doon jàngale diine doon jàngale alquranul karim ñuy dox ba bi jumaa ji noppee Cheikh Mamadou Fadil ubbi daarul maarif al islamiyya nga xam ne moom itam ba fi mu nekk nii ña nga fay jàng di génne ay borom bi xam-xam bari na lool ci dëkk bi ñoo xam ne foofa la ñu jaar ñii kër sëñ Habibu kër Cheikh Chouaïbou nga xam ne ñi nga xam ne jotuñu woon a tooge sax jataayub sëriñ bi ñoom it ku ci nekk ci liggéey boobee rek nga doon wéyal daari Cheikh Chouaïbou ku ne nga xam ne jàng nañ ak ni mu toll ba ci koo tudd rek kër Cheikh Abdoul Qadir Cheikh Abdoulahi mi nga xam ne nag moom barab bii moo ko tudde woon université ba tax na tey ñëpp université lañuy lañuy lañuy wax Cheikh Saliou mi nga xam ne moo ko fi wutu moom itam gis ngeen taxawaay yi mu ci am ak Cheikh Cheikh sëñ Cheikh Mouhamadou Lamine ak Cheikh Mouhamadou Cheikh sëñ Sidil Mokhtar ñoom ñëpp ku ci nekk rek ni ma ko waxee ñi ci tooge toogaayu sëriñ bi ku ci ne loola doon sa yitte ñi nga xam ne jotuñu ko toogee ku ci nekk loolu moo doon sa liggéey Cheikh Mouhamadul Mountakha nag bi yàlla dogalee toogaayu sëriñ bi yegsi ci moom ca saasa rek mu daal ne moom li muy njëkk def mooy daal di ne cas liggéey boobu moom it rek na ko kilifaam yaag waajuram yi yore woon def ko nag moom mu yittee boppam amul ñaar amul ñett amul ñeent bii rek mooy yitteem waaye alhamdulilahi rabbil alamin ba mu wootee wooteem bu tedd boobee wax li mu bëgg kenn ku nekk rek waar ba nga man nga daal di cay dale ñi nga xam ne ñoom la ko teg ci seen loxo muy rawdu rayaahin wax leen ne damaa bëgg ngeen waajal ma liggéey bi mooy manhaj bi mm. wala modèle bi ngeen tëral ko te sëriñ bi dafa wane foofu am li ñuy wax méthode ak organisation damaa wax ne dañ ko war a jàng ci Cheikh Mouhamadoul taxaa ndax buñu gisee ni mu defee liggéeyam bi dafa wax li mu bëgg wax ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ko war a tëralal déglu leen nag ñoom it ñuy def lu ñu xalaat luñ kiy bind ko indil ko ku ne xam na ne jàngkat la loo ko jox da koy jàng gëstu ko ñam bëgg a waxtaanaleen mu waxtaan ci ak ñoom ba ne nii laa ko bëggee di ko def di ko def di ko def ba xam ne lii kat warees na ko taxawal mu sogal jël loolee nag jox ko ay architecte ne leen nii laa bëgg ngeen jëmmal ko ci ay kayit ñu def ko ay plan daal di ko koy jëbbal waaye daf leen a yabalaat ci comité euh, pédagogique bi nga xam ne ñoom ñoo doon tëral tëral yi mu bëgg te lool loolu dara génn ci njàngaleem Cheikhoul Khadim lépp loo xam ne tëral nañ ko fi rek mën nañ ne fii la ko sëriñ bi fii la ko xadiisu sallallahu alayhi wa sallam waxee fii la ko alxuraanul karim waxee moo tax daaray Sëriñ Tuubaa la daaray lislaam la daaray alxuraanul karim la amu ci lenn loo xam ne lu ñu làmbatu la wala lu ñu jëggaani feneen lépp dañ ko tibb ci alxuraan ak sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne loolu rek mooy njàngaleem Cheikhul Xadim mi mu wax ne ba mu jógee daf ne bil Mustafa nawaytu maa maa yu jaddidu sunnatahu lgarra wa inni ahmadu wax ne wajahtu wajhi li rabbin la sharika lahu maa allasi qafuhu shughli wa xaajaati amuma beneen bëgg-bëgg amuma beneen mébét amuma leneen lu rek xeeñ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax ñu naan lu ma tax ñu naan sëriñ bi dafa dannoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xam nañ ne si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu koy donne mooy am njàngaleem ab liggéeyam ay ay lim fi bàyyi mul alxuraanul karim loola nag la Cheikhuna alxadim donn ba di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy taxaw taxawaayam ci noonu daara jooju nag moo tax bi ñu ko tëralee noonu sëriñ bi ni ma ko waxee ci méthode bi ak organisation bi bi mu defarloo manhaj bi mu soxla muy système wala modèle éducatif bi mi nga xam ne moom la ñuy def muy programme pédagogique bi jëmmal ko ci ay këyit jox ko architecte yi ñu def ko macha allah li ngeen gis nii mu delloo siwaat ko ci comité boobu ñu xoolaat ko yi nga xam ne jàpp nañ lu ñu ci war a jubbanti la wala luñ ci war a defaraat la yëpp ñu defaraat ko ba ne jàpp ne dëppoo naag li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg waaye lu ci nekk nag dañ koy indi ci moom moo koy xoolal boppam ba ne nii laa ko bëgg ba ci tur wi turu mu jàmma Cheikh Ahmadul Khadim li tarbiyati wa takwin muy complété complexe Cheikhouna Ahmadoul Khadim pour léducation éducation et la formation ba ñuy xalaat tur wi lu mat juróom ba lu juróom-benni tur la ay boroomi xam-xam bindoon waaye bi ñu ko indee moom moo génneel boppam moom mu jàmma Cheikhouna Ahmadoul Khadim li tarbiyati wa takwin daan ne Cheikh ah Cheikh Cheikh ji mooy garaat bi Cheikh Ahmadoul Khadim Ahmadou ji mooy tur wi loolu moo tax mu tudd mu jàmma Cheikh Ahmadoul Khadim li tax ñu wax complexe nag mooy lu bari dañ ci ëmb. dafa nam ni mu ko waxee ne dafa bëgg daara joo xam ne day tàmbalee ci kii dal baasin ba ca njobaxtan la loolu moo waral ñu tàmbalee ci alxuraan loolu karim ji nga xam ne moom mooy yëfi sëriñ bi alxuraan itam mboolem xam-xam yi am njariñ ñi ngi ci biir mboolem luy defar nit ci àdduna de ko defar àllaaxira mi ngi ci biir alxuraanul karim doon alali sëriñ bi nag doon koppar forum doon doon doon doon doon ndonoom doon doon wéttalam doon ab doctoram doon ab lépp léppam kanzil kitaabu wal xadiisu wal adab laa jam'u fiddatin wala jam'u dahab bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yasbutu laa bi dahabin mawrusi kon loolu sëriñ bi wax nga xam ne léppam alxuraanul karim la waaye wëlbatiku nag def ko muy wettalam def ko muy kaaraangeem def ko muy léppam yaa kitaabal karimi anta xabibi wa xalili wa xalili wa qablu kunta tabibi anta izzi wa mafxari anta jaahi anta kanzi yaa faxra kulli labibi loolu moo tax daare alxuraan ji moom ngeen jàkkaarloo nii foofu nag laay tàmbalee kon ndax mbooloo mi toog nga xam ne dañoo ñëwoon ci sëriñ bi wax ko ne ko lii nga sumb ñëpp riir wut si di jàpp di ànd kook yow kenn ku ne fam ma ne mu dal ca waar woowee ñiy kat yi dara ca waaru xam-xam wa nun nag dana doon ay liggéeykat yoo xam ne dañuy daan suñu doole ci ni ko cheikhuna alxadim radiallahu anhu waxoon kasbul xalaal wala talabul xalaal ak iltimaasul xalaal ñetti baat yooyu la sëriñ bi daan jëfandikoo ci koy liggéey ngir ñaq jariñu niñ koy waxee waaye bu waxee baatu liggéey nag amal wala jëf lim ci lim ci jublu mooy al amalu bil maalum mooy jàng xam-xam bu am njariñ te dem di ko jëfe waaye bu dee kuy daan doole moom la mu koy tudde mooy kas bul xalaal fàgg lu lew wala sàkk lu lew wala ñaan gu ànd ak sàkku ak sabablu ci borom bi subhanahu wa taala mooy def li nga war lépp ba noppi yaakaar nag xéwal ci sa borom ñoom nag ñu ñëw ne ko nun ci waar woowu la ñu bëgg a dalee ñu ñëw sëriñ bi woolu leen yandoo leen yan kendal lu yaatu ci kanam sëriñ bi ñu leeral liggéey bi ni mu tëddee lépp ba noppi nu dem ñoom ñu dem gise ñëw ne ko daal daaree alxuraan ji ñun noo ko sasoo bëgg la ko liggéeyal incha allahu taala caabi lañ day jox sëriñ bi keroog bëgg na mbégte moo xam ne ca saasa rek leneen la man sama aju faju kon tey bi mu ñëwee fii kon loolu nun ñi fekke woon jotaay boobee suñu xol gën naa sedd bu baax a baax te xam nañ ne sëriñ Tuubaa doon wax te lu mu wax lu suñu borom def la ba noppi ndax banal xuduusu joojee moo tax suñu borom tabaxal na ma ko ba noppi kon ñoom itam li ñu waxoon mbégteem sëriñ boobee tey ku ne gis na ko ci moom tey ku ne jàng na ko ci moom li jotaay bi xat xat xat xat gis nañ liggéey bi fi nga xam ne toll na ko ci moom bañ ko waxee nag ñoom ñu daal di soobu ñëw ci sëriñ bi mu tuddee leen taliatul muridiya taliyaa sëriñ bi bi ma déggee taliyaa ma dama ne ko sëriñ bi man baat yi sax daf maa xaw a daf ma dafa dafa dafa <laughs> daf maa yéem ak aljabha ah. yooyu baat yu yu xóotu waaw <laughs> moderne waaw léegi nag loolee nag moo tax ñu soob juróom defe naa juróom-ñeenti bâtiment sax yàkk naa ne war a mat mat na ko juróom-ñeenti bâtiment la ñu soobu ko muy yoo xam ne ay R plus la benn bu ci nekk rez-de-chaussée la ak ñetti étage ci kaw mu doon foo xam ne fukki donga junni junni ak ñaar téeméeri donga waajal nañ leen fa fu ñu war a toog di jàng te ay xalaqaat lañ ko def nga xam day daal ju ju moderne ni ko sëriñ bi waxee léegi lay doon dañu toog toogaay bu jekk toog fu féex di jàng ñu di leen di lim bu yam itam nekk fa ñu boole leen jàngkat boo xam ne moo leen di jàngal ñaag mu set loola waajal nañ ci ñoo xam ne junni ak ñaari téeméeri donga fu ñu toog di jàng fu ñu tëdd bu guddee di fa dallu mbaar yoo xam ne bu bëccëgee dañ fa mën a dalloo ak barab yoo xam ne bu xewlu jotee dañ fa mën a xewloo muy ay restaurant yooyu yëpp ñu waaj ko fii mu nekk nii mooy tabax yi ñu jàkkaar lool sëriñ bi ñëwoon tey seet si ko am ci yoo xam ne noppi na ñu doon ko ko jébbal bi nga xamee ne sëriñ bi def na visite bi ba noppi nag ni ma ko waxee woon mu jox ndigal sunu kilifa di macha allah koo xam ne noonu mën noo seede ci moom sëñ Ishaq moom Cheikh Mahamadul Bachir di borom xam-xam di di murid saadix di ko am yàlla dogal na macha allah li mu li mu li mu li mu capitalisé ci expérience li mu ma waaw li mu am ci xibra buñ ko doon bu buñ ko doon kii alhamdulilah rabbil alamin kenn xamul nu mu toll. di liggéeyal yoon wi nag ci suuf te kenn du ko gis liggéey bu xóot bu sori kawe boo xam ne ñu bari xamuñu ko waaye sëriñ bi wax ko nag ne ko na toog jottali ko kàddu cant yoo xam ne fee ca barab ba la bëggoon a taxaw wax ko waaye mbooloo mi booba mel na noo xam ne murit bu gisub sëriñam moom alhamdulilah rabbil alamin ñun ñëpp kenn ku nekk xamatoo woon looy def. waaw moom ci boppam itam waxtu wi mu jóg ngir li ñor gu ko liggéey bi ñor moo tax mu jóg waxtu woowu ñëw bu fii bi mu jullee ba noppi mu wax ne na sëñ Isaaxa yaatal jottali kàddu cant yoo xam ne xëy na li mu bëgg a cant gi sax moom mënu kenn mënu ko wax ci mënu ko wax waaye nag xam na ne Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu mi nga xam ne moom la ñuy jëfal mi ngi jàkkaarloo ñun te am na fay te dana fay ngeen ji fay waaye nag na ko sëriñ bi jottalil cant googu bu ko defee yéen ñi nga xam ne tey xam nañ ne yéen ñëpp a teewoon daanaka délégation bi bañ ñëwee fee gis naa Serigne Mbaye Sarr mi nga xam ne mooy coordonnateur bi gis naa Serigne Abdoulaye Dia mi trésorier bi gis naa El Hadj Serigne Cheikh gis naa El Hadj Serigne Mbow gis naa El Hadj Cheikh Mbacke Seye nga xam ne fi mu nekk nii moo fi nekk Pape Fall Pape Fall pour ami bëtu gis nañ ko gis nañ El Hadj Mbaye MG waaw gis nañ itam euh, Cheikh Cheikh El Hadj Cheikh Cheikh waaw gis nañ itam sëñ Balla Ndiaye mi te TQG nga xam ne mi ngi fi moom itam ak sëñ Ousmane Ndiaye sa trace mbokkam ñoom ñëpp ñëw nañ mbooleem ñi nga xam ne ñoo am jàpp ni mën a ñëw ba ci barab bi rek ñoo ñëw tees waaye teewaale fi mboolem taliatul muridiya bi nga xam ne talia boobu rek li ko sëriñ bi tuddee mën nañ cee tekki mooy ñuy wane yoon wi ñooy ñooy ñooy daal les avant-gardistes xaw ma ñooy ñooy percocé waaw <laughs> waaw waaw waaw waaw yaakaar naa ne wolof sax am nañ baat bi dafa mel ne mooy liir ci wolof. waaw bu ñuy xeex yi ñuy jëkk a dem. waaw kobay yi wala waaw ñooñu leneen sëñ bi tuddee tur la woo xam ne xam nga sëñ arab dafa riche fii ne benn baat mën naa am fukki tekki dafa am bis bi ñu def liggéey bi kilifa gu ma woo ne ma bil Mustafa lii banal quddus matras waaw waaw mën naa ko ak la waaye man dannani gayra xadimil Mustafa fa innani axdimuhu lu ci topp ma ne ko bi Moustapha wala Ka Moustapha wala lu ñëw sama xel rek wax ko. waaw <laughs> a def <laughs> mu ne man nag loolu ngeen am waaye loolu kon mooy lii seen tur yu taliya ah, lépp luy wane ak njàmbaarte luy wane njiit luy wone aw yoon luy wone ni ñu war a liggéeyee la sëriñ bi ci vingt-et-unième siècle tur woowu mën naa tekki loolu mooy taliya ah, yéen a war a wane waat yeneen liggéey ndax damay wax ne ñu baax ñu njëkk ñi dañ doon dàkk bëggu sëriñ bi ku dàkk bëggug sëriñ bi rek sa aajo faju nga daal di taxe ba àddina àddina dañoo am tawfeex tase ak mun ne ñu lii laa bëgg defalee leen ma ko nii loolu kon turu tadaa murid woowu al jabhal muridiyya ci lay dugg sëriñ bi nag bi mu ñëw tey dafa def wër liggéey bi nga xam ne mboolem ñi nga xam ne ñoo fiy liggéey ku nekk dafa jaar ci yow nemmiku sab liggéey gis ko sant la gërëm la ñaanal la ci Hizbut Tarqiyyah la tàmbalee ndax xam ngeen ne liggéey bi bi ñuy waajal euh, kii bi euh, comité pédagogique bi bi ñu waajal manhaj bi wala modèle bi yàlla dogal na boole ci woon këru xasida ndax bibliothèque bu mag bi nga xam ne moom bibliothèque universitaire bi nga xam ne lu ne xaj na fi ñun jàppoon nañ ne foofa këru xasida gi dana fa dugg waaw waaye sëriñ bi ci boppam nag moom moo tànn këru xasida yi jox ko sëriñ Aatu ñu koy ñaanal yàlla yokk leeram te xare ko àjjana jàmbaar la waaw sëriñ Yuusuf mi sëriñ Yuusuf mi fi nekk di yàlla dëgëral ko te kattanal ko moom mboolem ñu ma àndal ban ñu mën a àndal si àggale seen liggéey ba mu fa jógee mu dugg ci ne sëriñ Ishaq la dafa yéen dafa mel ne da ngeen a tàmbalee ci kaw fàtte ci suuf centre de centre de formation bi nag moo tontu laaju sëriñ bi dafa ñëw moom tàmbalee ci suuf fekk ci kaw nga xam ne ki génn ci daare alxuraan ji ni ñu ko waxee nga xam day mokkal alxuraan yóbbaale mbooleem xam-xami diine yi mënta ñàkk nga xam ne bu génnoon ci daare alxuraan ji dem jàngi métier it moom forma formé nañ ab jullit ab ab ku xam diineem waaye nag koo xam ne itam xam na diineem ba mat sëkk léegi kon la ca des nag mooy tàggu sàkku ji métier wala lu mu a daande tuure ñaqam kasbul xalaal wala talabul xalaal bi ma doon wax centre de formation bi rek da leen di gàttandoo foofu nit ki mën naa mokkal alxuraan am fukki at ak ñaar waajuram ne man kat damaa néew doole dama bëgg sama doom teel a tàmbalee liggéey kon naa ko daal di yóbbu centre de formation bi mu defi juróom benn weer rek wala at daal di mën a nekk ba installé bâtiment ci wàllu électricité ci wàllu plomberie ci wàllu bu fekkee ne man gëm naa mag fi mu ne dama ko yóbbu foofa mu def fa at wala juróom-benn weer wala ñaari weer toll ci fukki at ak ñeent fukki at ak juróom loolu sax léegi xëy na tàmbali ci liggéey teel na waaye mu ñëw ànd ak baayam lu rëqoon ci wàllu technique ci kii boobu mën ko jubbanti moom ba li fekk muy banque boobu mën a yor liggéey bi mag itam mën naa yor ab atelier di liggéey waaye nee na ayu bis gi ajjuma laa ci noppalu ajjuma nag bu ma julli jee ba noppi dox yi ma war a dox am naa ci ñaari waxtu yu ma war a ñëw ci centre bi ñu defal ma renforcement de capacité li ma doon jàng mooy menuisier laay def wala eh, euh, mécanique automobile ci oto yu xew yii léegi nga xam ne bokkut ak yu njëkk ya ñu ñëw ñu tàggat ko ci moom mu mën a daal di liggéey waaye ndaw li mën na cee nekk nag moom itam di dem ba am BTS am DUT ñu defal ko dugg ñu defal ko benn passerelle mu dem université nekk ingénieur wala mu nekk architecte wala mu nekk lu mu bëgg nekk kon sëriñ bi loolu mooy gàttandu <laughs> loolu nga xam laaju borom xam-xam la daa daana daana wëlbatiku suñu bopp nag waaye sëriñ bi indil na boppam tontu li <laughs> waaw léegi foofa la ba fa noppee foofa la jaar jóge fa nag daal di ñëw ci sëñ Abdou Lahad nga xam ne xam ne sëriñ bi wax nañ ne benn yitte la am lu ko nit jox ci liggéey bii la jëm lépp lu ko waay jox gis naa daayira yoo xam ne sax bu ñu indee seen daayira dañ ci denc lu ñu tuddee taran wala mber ma jox ne sëriñ bi ne ko li yow waaye lépp ci ko jëmewaat lu ko waay jox foofu la ko jëmee waaye nag mu yeesalaat doxinu yoonu murit ndax sëriñ si ku ci ne sa mbooloo ñu ngay dajale ka am fukk ka am juróom ka am ñaar fukk yët la nga dajale ko nu mu toll nga ñëw jébbal ko sëriñ bi muy doxaat doxinu yoon wu njëkk wa yeesalaat ko dëggalewaat ko tooy la àllarba ya ñu nekk ci taax yi wala ñu nekk fu sori dajaloo def ay kuréel tudde seen boppi daayira lu luñ dajale ñëw yet ko sëriñ bi mu def ko ci taalibe bu am fu mu dugg ci ruxam itam yëkkati addiyaam ñëw yët ko bi mu dugal ko ci loola foofu la sëriñ bi jaar moo koy liggéeyal boppam muy juróom-ñeenti bâtiment yoo xam ne amphi bu 1500 euh, places ma nga fa man loolu maa ngi ko soog a gis mooy majalis bi ak UFR islamique ak la euh, UFR science islamique ak làkk arab bi kulliyat dirasatil islamiyya wal luxal arabiyya ak euh, rectorat bi ak restaurant ya ak itam euh, rectorat bi nga xam ne moom mooy kii bi ci gën a mag mooy bâtiment bu mag boobu ñu seen ci kanam yooyu yëpp sëriñ bi koy defal boppam ak bibliothèque boo xam ne defe naa 32 000 mètres carrés la war a doon loolu man mosuma ko gis fenn di bibliothèque bu moderne boo xam ne itam dafa am benn association archiviste documentaliste ak ak ak ak ak kii ñoo ko defar bibliothécaire archiviste archiviste documentaliste nga xam ne association boo xam ne addina bi ëpp xam-xam ñoo fa daje di sénégalais ñoo laxasaayu ñëw ne sëriñ bi loolu moom wàccaayu noo la koy defal def ko fi maanaam euh, norme yi nga xam ne daal moom la ñuy wax standard foofu lañ tàmbalee ñoom jëm ci kaw mooy bibliothèque boobu yi nga xam ne moom moo nekk ci bunt bi boobu itam ci li sëriñ bi tabaxal boppal la ci mboolem loo xam ne jox nañ ko ko foofu la koy dugal gis ngeen ko bi mu ko tàmbaleeg léegi gis ngeen majalis bi wutal ni man mosuma ko gis waaw ak UFR islamique ba noppi nag yeneen UFR yi war a am ci université bi yëpp agronomie ak euh, institut la santé nga xam moom itam ci liggéeyam sëñ Ishaq la mu doon boo moom mënatu ta yàlla dogal nag ñu ubbi fi hôpital bu yees nga xam ne bu ñëwee moom dañaa dañuy am HU euh, euh, euh, centre hospitalier CHU dañ koy daal di am te ay professeurs yu gën a mag ci wàllu médecine ñoo fi jàngale bu boobaa man di fajaale ci hôpital bi waaye di fajaale fii ci biir université bi loolu itam sëriñ bi jaar na fa ba xool ko ba ba ba noppi bi mu fa jógee itam mu daal di ñëw nag fii nga xam ne fi la ñu nekk tey njëkk jaar ci liggéey bi nga xam ne waa Touba ci kanam ñoo ko def muy bâtiment bu am solo boo xam ne moom itam bâtiment de ci ay jàngukaay lay doon doon bâtiment bu am solo daal di fay jóge jaar ci euh, fii nag nga xam ne romb njëkk romb restaurant bi nga xam ne euh, soxna Sadou moom moo koy def moom itam mu jàmbaar lool gis ngeen fa mu toll muy liggéey bu am solo yabaloon na fi ñu ko teewal. soo ko ñëw nag ci ñi nga xam ne nag ñoo tax sëñ bi jox sëñ Isaax ndigal ngir mu mu mu joxe ndigal mu jox ay cantam waaye di ko defee ci barab bii nga xam ne nag kàddu yi nga xam ne sëñ Isaaxa yëkkati na ko fi mënee su cee teg dara sëriñ bi ci boppam nee na ko lii mënutoon ñàkk loolu kon du ma ci du ma ci ma ci du ma ci dugaat mu ñëw nag man itam ànd ak sëriñ Mamor Muntaxa moom nga xam ne moom ko xam sëriñ bi xam nga ko ku ne xam ne fi mu féete sëriñ bi ak fi nga xam ne foofu la tollu ci moom kon sëriñ bi maa ngi jéggulu maa ngi guddal waaye daal mbooloo mi daal sëriñ bi moom ñu ngi noonu ñoom daal ay jàmbaar lañ am na ndaje muñ daje woon moo xam ne ca ndaje mu njëkk ma kër sëñ Mbaye mii lañ ko dajee man fa ci laa njëkk a gisee ci benn barab ñu dajale fa milliard ci benn barab loolu bi keroog bi ma ñëw wax ko sëñ bi macha allah mbégte ma mënu maa wax la ma wax lépp daje naa fay fekk naa fa itam ndaje bu ñu fa daje juróomi téeméeri million ci benn ndaje loolu kon sëriñ bi moom laa la doon jégalu ndax boo toogee kenn warut a yëkkati sa waaye sa ndigal la waaw di di di leen xamal ne daal li ma ko waxee mi ngi defal yoon wi liggéey boo xam ne ñu bari xamuñu ko ndax li ma wax li mu li mu dajale ci xam-xam macha allah yàlla na gën a yàq gën a yokk ak ak mu bëggee sëriñ bi ak ni mu bëggee sagub yoon wi ak ni mu bëggee ndamul yoon wi waaye loolu lépp daf koy liggéeyal sëriñ bi ci suuf te kenn du ko gis man xam naa ci dara kon ñi ngi koy ñaanal moom itam sunu borom bàyyi ko fi ko wér bàyyi ko ci gannaaw Cheikh Mahamadul Muntaxa mi nga xam ne ñëpp ko ñaanal ba liggéeyam bi tey nga xam ne daa ñëw rek doon ñu di ko jébbal caabi ay benn ci ay bâtiment tàmbali ko ba mu yegg ba mu tàmbaliwaat yeneen te wóor nañu ne moom lu nangu la ba noppi ndax sëriñ bi moom sunu borom defal na ko ba noppi dégg naa Cheikh Mamadou Fadil bi jumaa ji noppee dafa waxoon ne Mbàkke fii la fii la fii la jamono toll ñu toll fekk yow kon nag Cheikh Mouhamadoul Mountakha <laughs> na ko muy feesoo weesu bi <laughs> waaw waaw waaw Cheikh Mouhamadoul Mountakha it fii la jamono toll <laughs> fii lañ toll rek toll fekk yow waaye fii sëriñ bi maa ngi lay xamal ne bari na lool ay nit ñu jóge bitim réew ñoo xam ne du ma tudd tur waaye gis ngeen leen waaye ku ci ñëw li muy njëkk def mooy yéem liggéey bi sëriñ bi yabal nañu ci ay mission ñu dem ci ay réew yoo xam ne ñun dañoo jàpp ne dañuy dem jàng ci ñoom waaye bu ñu demee bu ñu leen leeralee yëf yi ni mu tëddee ñoom dañ naan dañuy ñëw Touba jàng si ba ci réew mu jege fii rek mën naa ko dama ko wax wax na ne moom bu kii bi tàmbalee te ñun dañ faa demoon di wuti ay jàngalekat ci wàllu kulliya dirasatil islamiyya wa loxal arabiyya waaye nee na ñoom ñoo njëkk yónnee ay ndonga incha allah ñu ñëw jàng si fii ci daari Cheikhoul Khadim bi bi mu jógee nag ci ci ci centre de formation bi dafa jaar ci liggéey bi nga xam ne waa commercant yi ak yëngukat yi nekk Touba def naa ne leen di tudde léegi sëriñ Moussa Mbaye mii moo leen fi teewal waaw ak sëriñ Fallou Xumma ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ àndal ñu ay jàmbaar yoo xam ne ñoom itam dañoo ñëwal fii ci sëriñ bi sasu wax na ko danoo bëgg a liggéey ñaari enfi amphithéâtre yoo xam ne bu ci nekk 500 places lay doon benn bi moom alhamdulilah daanaka noppi na bi ci des itam xam ne ne buñ ko songee du taxaw ñuy ay jàmbaar yoo xam ne ñoom bi dañ ne kat jàpp nañ ne sëriñ ñëpp ko bokk waaye kuy liggéeyal sëriñ bi xanaa ñun ngay dimbale ndax murid yëpp Tuubaa lañ dëkk waaye nag ñun itam dañoo am tawféex nag di yowoo ci dëkk bi bisu set kon lu ñuy def ñoo ci war a jiitu ñoo fii tànn ñaari euh, amphi yoo xam ne man dem naa ci réew mu mag moo xam ne ba demee amphi bañ ma visité loo 400 places la ñoom ñaari 500 places yi def te daa université boobu ñëpp koy dégg ci àdduna bi waaye benn amphi bu 400 places fa léegi nag ma dem ci yeneen université yoo xam ne dañ koy dégg ñu di ko tudd ñu ci dem gis ko benn bâtiment ci yiñ def fii daanaka xaw naa wala ñaar gën ngaa bari day xaw naa mat université moo tax ñoom ku fi ñëw dangay loolu ngay njëkk seetlu ñoom itam bale bokk nañ ci sëñ bi cant gi mu joxe ngir sëriñ Isaaxa jottali ko ak mboolem ñi ma tudd nii ndax man dama doon tudd rek waaye cant gi moom sëriñ Isaaxa moo ko te méthode organisation bi ma doon wax itam bi mu nu joxee wàllu euh, programme pédagogique bi dafa jox itam maam Thierno moom sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Moustapha Bachir moom itam mu ànd ak mbooloo moo xam ne moom it sëriñ been tuddee al jabha al jabha al muridiya lil ulumi wal amal am doon naa ko day. dafa am bis Éthiopie ñëw fi dégg arab lool. Ah, léegi nag di wax ak bi si sëñ bi di di di di wax a wax dama toog naan Ahmad Badawi ma ne ko man kat bu ma tooy làkkat bu mag bi xamatu déggatu may lakk da koy yaay làkkat bu mag bi sëñ bi làkk arab yoo xam kenn mos koo dégg <laughs> waaye làkk yi bu ñu ci soxla da koy jëfee moom ñoom itam. organisation bi noonu la ko defee ñii la dénk wàllu waajtaay wi waaye exécution bi nag ak tabax yi ñii la ko dénk ñoom itam ñu def plan béton armé yi def plan eau technique yi di def décompte yi def ko liggéey bu am solo ñoom itam ànd kook mboolem ñi nga xam ne ñoo yëngatu fii ci liggéey bi kon noonu la liggéey bi tëddee sëriñ bi kon sëriñ bi sëriñ sëriñ Cheikh Ahmadul Bachir itam moom sëriñ Abdul Xaadir sëriñ bi wax ne moom itam ni mu ko déggee kàddu kàddu yoon bi lépp loo xam ne moom la ñuy liggéey ci yoon bi moom itam moom la moom la moom la ci moo tax moom itam mu def ko maître d'ouvrage bi mu nekk mu mu toogal fa sëriñ bi waaye sëñ maam na yor nag suivi ba ak ak la nekk ca moom nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy mooy topp ka wàllu njàngum xam-xam yi ni ma ko waxee woon tëral gi ñun sax dañ cee yéemu maanaam université boo dégg ci àdduna bi rek am na ay boroomi xam-xam yu fa nekk di taalibe Serigne Touba yoo xam ne ñii ngeen def lañ def jokkul seen bopp wax ne dañoo bëgg a dugg ci biir liggéey bi kenn ku nekk wax la muy jàngale foofa wax diplôme yam fa am ak expérience ba mu fa am am na ci xam ne dama ne leen di jàngale la maanaam xam-xam yi gën point pointu ci àdduna bi rek domaine yi gën a pointu ñoom ay taalibe Sëñ Tuubaa ña nga fa loolu mbooloo moomu te ñoom ñëpp itam dañ ne kenn ku ci ne danga nga ne Sëñ Muntaxa dañ koy sant di ko ñaanal ndax li ñu doon ñaan yàlla mooy mën a mën a mën a feeñal suñu yéene ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci li ñu am ko su néew ci lu ñu yàlla sarax ci xam-xam loolu ñoom ñëpp noonu la ñuy def moo tax liggéey bi mel nii nga xam ne fi mu nekk di buñ système éducatif lay doon wala modèle éducatif bu Cheikhul Khadim te mooy bu lislaam sëriñ bi joxe ndigal ne bu noppee dëkk bi yëpp dañuy ànd tënku ci nga xam ne mbenn njàng lay doon école yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ak daara yi fi nekkoon yëpp mu dooleel leen fenn fu ci nekk la ca xawoon a manqué ñu yokk ko ca ci misaal école yi nga xam ne programme éducation nationale la ñuy jàngale dañ ciy dugal njàngum diine mu bari lool tibbeeku ci njàngalem Cheikhul Khadim te mooy njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xam ne itam école yi arabe lañ yoroon moom itam dañ ciy dolli njàngum science nga xam ne ëllëg nit ki mën naa jàng ci école yooyu ba am bagam bac arabe am bac général bu arabe waaye ne man ingénieur laa bëgg a doon wala mu ne man damaa bëgg a nekk médecin wala damaa bëgg a nekk leneen bu boobaa am na itam programme lu ñu tuddee passerelle yoo xam ne waajtaay lay doon wuñu leen di defaraat nga xam ne nit ki mën naa jóge ci majalis bi itam jàng ba am niveau licence nga xam ne xam-xam njàng ma gën a xóot la koy jàng jekku ga gën a nit lislaam la koy jekku waaye wëlbatiku nag jàngiwaat meneen métier mu bëgg a jàng loolu passerelle yi nga xam ne moo koy def itam bañ mën cee romb maanaam euh, rombukaay jéggiwukaay yi ñu mën a romb bàgg foofu itam waajal nañ ko ba noppi nga xam ne daal kon bu noppee njàng mu matale lay doon mi nga xam ne ni la alquranul karim matale ndax lii lépp ci alquran lañ ko tibbee ak ci na si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ne ko cheikhul alxadim radiallahu anhu yaatale ba ñëpp mën koo jariñoo mu dëppoog nun dëppoog sunu aada te gone gi fii jénga génne day xam taarixu Sénégal day xam histoire Sénégal mooy day xam boppam xam ay maamam xam démbam xam réew mi mu dëkk xam continent africain bii mu nekk làkk yii am ci biir réew mi itam ñu dooleel ko ci soga nag tolloog standard bi nga xam ne nag mooy àdduna bi nga xam daal dañuy jëmee ci suuf àgg ndak ca kaw sëriñ bi moo nu koy wax ba boppam al asala wal muasara ñaari baat yooyu si wax Cheikh Mamadou Mountakha lañ ko lañ ko dégg al asala wal muasara wala al asala wa tajdiid mooy téye li nekkoon xam li nekkoon démb bu baax a baax téye ko ngir mën a doxe tey niñ ci war a doxe waaye ngir mën a waajal ëllëg loolu kon li sëriñ bi wax ne mooy li mu bëgg mu génn ci jàngukaay bi mooy nit koo xam ne day xam diineem bu wér a wér a wér lépp lu mar a xam ci lislaamam mu xam ko jikkoy lislaam yi nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale innama bu'ithtu li utammima makaarimal axlaaq yëpp da koy xam waaye dañ ko ci nàmpatal ba mu làgg ca di ko jëfe waaye nag day tolloog jamono ba lépp lu jamono soxla mu mën a indi ngir mën a indi ponk bi nga xam ne dafa bokk ci li tax sallallahu alayhi wa sallam dund indi ñu yonente sunu borom bind ñu muy dundal suuf ndax ñetti ponk yooyu ñuy wax waxtu ne suufiyanke yi di ko di ko dund mooy représenté yàlla ci kaw suuf moo tax Cheikh Mouhamadul Mountakha fonk nit defal leen liggéey bu sell bii ànd koog taalibe yi waaye nag ngir ñu mën a jaamu yàlla ñu ngi toog ci biir jumaa kon loolu firnde mënu gënu ko mën a kii waaye nag ngir dundal suuf mooy dañ fi jàngale ay métiers yoo xam ne ëllëg màggal gii bu jàllee der yi nga xam ne moom lañ fiy lewetal nga xam ne kenn xamul nu mu toll ay nang mi junni ñu def fii nag tàggat ay ndaw yoo xam ne bu ñu génnee dañuy créer ab chaîne de production boo xam ne teneer yi boo xam ne la cey génne dañ koy daal di mën a def ay bag yu ñu toog def ci dàll yu ñu sol def ci mbubb yu ñu sol waaw daal di ami métier nga xam ne dañoo bëgg ñi génn ci centre de formation yi ak université yi duñ dem di xaar kenn jël leen ñu liggéey ku ci génn da ngay daal di opérationnel ci saasa waaye dañ lay tàggat tam ci liir ci ci ci partenaire ni ñu koy waxati ci entrepreneuriat ndax entreprendre moom dafa bokk ci euh, euh, aaday murit waaw ku ci génn da ngay daal di mën a dem daal di defali sa bopp daal waaw centre de formation bi bi ñëwee di ko di ko kii dama ne leen njaareem doy na ci misaal kër Cheikhul Khadim radiyallahu anhu gi nga xam ne moo nekkoon ci njaareem kon daal jëgaani dara sëriñ bi daa indiwaat lislaam yaatalal nu ko leeralal nu ko lal nu ko Cheikh Mouhamadul taxaa ñëw nag euh, firndeel ko ñu mën ko jëfandikoo salaamaaleykum